ginnaaw bu ñu àndee ak Amadou Ba ci atum 2024 ci élection yi ñu mujj ko ñàkk parti socialiste dafay defaraat taxawaayam. defaraat taxawaayam woo ñi nga xamante ni ñoo ci bokkoon dem ñu war a ñëwaat tey ñi nga xamante ni nag ci biir parti bi ñooy conseil des sages ñoom ñoo woo képp ku nga xamante ni nekkoon nga doomu parti socialiste génnoon nga ñëwaat ngir boole benn famille politique boo xamante ni daanaka fukk ak ñaari at a ngi nii ñu féewaloo woon boole lu ñu yoroon tey ak dem ci démb sax bi Sénégal amee indépendance ba ci atum 2000 parti socialiste moom ma jiite réew mi ci ñeent fukki at bu ñu ñàkkee nguur gi ci la tasaam Khalifa Sall ak ñi mu àndaal Ousmane Tanor Dieng ak ñeneen ñi ci beneen fànn bi bootu woon ci ginnaaw Macky Sall tey jii ñu bëri wax nañu nañu fàtte boolowaat loolu mel ni moo fi des. saytuñu héritage Senghor loolu moo leen gën a dal suñu mënoon a fexe ba daje nekkaat benn ba loolu ndam tax euh, militant socialiste yëpp donc ñooñu ñëpp suñu leen mënoon dajale nekk benn mais loolu seen ndam la euh, seen ndam organisation la. wante yaakaar googu wekku ci ñi nga xamante ni ñoo demoon war a ñëwaat tey. defaragul dara. parti bi yàgg na ñi nga xamante ni tamit ñoo ko ŋànk. biñ ci nekkee yàgg na. politique bi soppeeku. loolu yëpp nag ñu war ko jël encontre nañu préparé ba nekk benn fii ak deux mille vingt neuf suñu nekkoon benn euh, euh, ñu nekk ci même organisation ñu am seen candidat ba deux mille vingt neuf defe naa luñ ci am fu ñu jaar mag yi dañu war a joxe nge lenge donc deux mille vingt neuf ñoom ñëpp war nañu sóoraale que xale yi ñoo war a jiite PS. at yi ñu weesu parti socialiste nekk ci ay jafe-jafe ñu dëgmal nag war a boole ñëpp ànd liggéey taxawat ci langu politique gi juróom-ñaar fukki ak juróom-benn ci histoire loolu di yee yeneen di laaj soppi doxalin ban politique tamit moom la ñu war a adopté. te malheureusement li ñu gis fii léegi mooy politique saaga la politique xasante la.